bonjour chers internautes de SeneInfo International seneinfo.net euh, dal leen ak jàmm ci seen rubrique invité de la rédaction tey nag SeneInfo rédaction SeneInfo International mu ngi dalal ki nga xamante ne moom mooy euh, monsieur Karounga Camara mu nekk en coach professionnel euh, ancien émigré aussi donc monsieur Camara moom coach professionnel la personnel aussi certifié chef d'entreprise consultant auteur formateur donc après les études universitaires euh, monsieur Karunga Kamara euh, def na def na une carrière professionnelle dans l'enseignement en dispensant des cours en donc mu fi jógee aussi euh, voyage na il a eu à partir en Italie def na immigration après mu ñëwaat Sénégal moo fi benn entreprise entreprise en même temps aussi mu nekk coach professionnel donc tey jii ñu am mbégte bu baax di ko dalal si plateau bi si seen bi invité la rédaction ñu bàyyi ko rek mu présenté wu Euh, monsieur Camara ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu ay Aïssatou euh, di la baax ci invitation bi di nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp. d'accord monsieur nga nekk coach professionnel nekk chef d'entreprise ñu bàyyi la rek ndax gën a kii yaa nga gën a présenté euh, nga présenté wu à nos internautes waaw je pense que déjà tu as. xaw xaw nga xaw nga proche tuuti expliqué donc Karanga Camara laa tudd donc tur bi nag xaw na original tuuti euh, comme j'ai l'habitude de dire un nom propre j'ai pas un nom commun donc euh, ma nekk sénégalais donc juddoo fi yaroo fi màggee fi jàngee fi commencé fi liggéey donc suma carrière maa ngi ko commencé maa université nekkoon fi ñu département mathématique mm-hmm. euh, ba mu jógee après je suis devenu professeur de mathématiques mais jàngale mathématiques ci collège yi mm-hmm. ci lycée yi après si laa immigré xaw naa teel a commencé jàngale après ma dem euh, immigré ji comme beaucoup de Sénégalais je suis parti en Europe euh, def naa juróom-ñaari at en Italie plutôt à Milan mais ci période boobu j'en ai profité un suma xam-xam jàngaat bu baax euh, def yu ñuy management communication là de je le métier de coach, de coaching, après. Euh, j'ai aussi eu l'occasion de voyager un peu. J'ai fait beaucoup de pays qui visent l'Europe, à Asie, même aussi en Afrique du Nord. Donc en 2015, dans la au Sénégal, définitivement, on te mène la première entreprise bi ñuy wax Sénéta Food pour pour pour def pub dans le domaine de l'agroalimentaire. Euh, en même temps euh, deux ans après mu monté beneen entreprise ba nga xam ne mooy évoluer dans le domaine du coaching de la formation et de la consultance. Mm-hmm. Euh, euh, voilà je suis aussi auteur d'un livre mm-hmm. qui s'appelle Oser le retour donc qui parle du, du retour des immigrés du et en Afrique un peu partout mm-hmm. voilà damay participer un peu aussi à travers le monde ak beaucoup de forums sur affaire immigration même seen voilà donc en gros c'est un peu difficile nag de parler de soi mais en gros pour résumer rek voilà un peu le parcours que j'ai mm-hmm. euh, en quelque sorte. tout à fait mu nekk présentant en parcours exceptionnel ba nga xamante ne monsieur Karounga Kamara def na ko euh, mu am ko aussi donc euh, monsieur Kamara nga ne vous avez dit que vous êtes euh, coach mm-hmm. professionnel c'est quoi le coaching lan mooy coaching. waaw coaching d'habitude booy xool nit ñu bare dinañ koy dégg le mot coaching. Euh, mais nit ñi ci mbiru sport lañ ko gën a xamee ay coach de basket coach de football am na coach de d'athlétisme coach de lamb lépp am na daal waaw rôle coach boobu loolu mooy tout simplement luy tubaab di o faire correspondre la performance potentielle à la performance réelle au moment de la compétition c'est-à-dire que coach bi dafa war a fexe ba athlète bi ak sportif bi li mu mën ci potentiel am jour compétition mi wone ko. bon en quelque sorte aussi ñun liggéey boobu la ñuy def mais dans le domaine de la vie xam nga doom aadama yàlla daf koy may day am ay capacité am ay talent am ay ressources yi nga xam dafay nekk ci moom et parfois il a du génne donc ñun dañuy essayer tout simplement avec quelques méthodes qui sont quand même assez efficaces fexe ba nit kooku li ko yàlla mën mu génnee donc loolu nag pour mu am mu foog nga apporter ay changements yu bëri ak ay transformations maanaam ay sa soppeeku si sa dund donc euh, bu ma nee changement boobu nag ay outils ngay utiliser maanaam ay jumtukaay pour apporter changement yooyu changement yooyu nag mën na nekk si ñaari ñaari anam anam bu njëkk bi mooy lu tubaab di wax se défaire de certains aspects pathologiques mm-hmm. euh, maanaam am na la nga xam ne dafa nekk ci yow neexu la mm-hmm. wala gënalu la nga bëgg mu deñ exemple bi may joxe am na ñi nga xam ne dañuy de colère ñi nga xam ne dañuy gaaw a mer nan ngay def ba gaaw a boobu dañ ci yow mm-hmm. am ñi nga xam ne dañuy am problème bu jël maanaam am nañ problème pour am confiance ci seen bopp mm-hmm. dañuy ragal def yenn mbir nan ngay def ba loolu dañ am na nga xam ni dañuy luy tubaab di wax procrastiner maanaam dañuy bëgg def benn affaire ñu ne damay bàyyi ba suba mm-hmm. bu subaa ñu ne damay bàyyi ba gannaaw suba am xam ne dañuy am problème pour am temps maanaam gérer seen temps yooyu yëpp ay aspect pathologique la day nekk nit nit bëgg dañ donc mën nga utiliser un coach wala nga faire du coaching pour mu dañ mm-hmm. beneen aspect bi nag beneen anam bi mooy li ñuy wax améliorer tes performances maanaam li nga mën xarañ ci nan ngay def ba gën cee xarañ donc am na méthode parce que ah, dans la vie si tu n'avances pas tu recules donc li ma mën di ko def dama war gën toujours di ci gën a avancer donc loolu nag moom moom mooy peu le coaching donc bu ma ko bëggee résumer damay wax rek ne mm-hmm. euh, benn processus la ba nga xam ne day dégg diggante ñaari nit kenn ki ñu ngi koy coach keneen ki ñu ngi koy coacher donc processus boobu nag ça vise tout simplement à stimuler la réflexion maanaam tàggat sa réflexion tàggat sa prise de conscience ak say actions yi nga xam ne da koy def pour atteindre benn objectif Euh, genre collaboration la relation entre ñaar ñooñu maanaam coach bi coach bi mais le coach le coaché est invité il est encouragé à explorer ses propres ressources et à trouver ses propres solutions autrement dit su ma la doon coaché léegi yow c'est pas que dama lay jox conseil wala dama lay jox ay solution mais dama lay encouragé ba yow sa bopp solution yi yaa koy gisal sa am confiance en a am non cest à genre coaching sax dañoo bari parce que dafa de moom la ñuy wax life coaching boobu moom mën a conseiller li wax développement personnel maanaam nga gën am confiance en soi gën am lu ñuy tuddee wax intelligence émotionnelle parce que émotion mooy nit les émotions représentent quatre-vingt pour cent du succès de la vie n'est-ce pas ak lu ñuy wax naan euh, entre vie professionnelle et vie personnelle parce que parfois nga am sa vie professionnelle ak sa vie personnelle a adapté yooyu coaching de vie ngay def am na lu ñuy wax aussi business coaching pour ñuy liggéey dirigeant yeeg ñoom seen ñu mën a améliorer seen performance am nañu aussi lu ñuy wax le coaching collectif maanaam nan ngay coacher benn groupe ba ñu gën a déggoo donc yooyu yëpp ay système de coaching la nga xam ne ñoom dañ koy def d'accord mu nekk lu am solo lool am importance pour askan wi ñu xam ko mhm. donc euh, tey jii quel est l'intérêt de faire appel à un par exemple tey jii lan moo lan moo war a tax nit tey de war a ne man mii damay ut pour vraiment mu encadrer. intérêt la ci war a am. merci beaucoup ci question parce que xam nga doomu aadama moo soxla Euh, wax ak ne moo soxla di partage ay ay ay xalaatam wala moo soxla aussi di am avec keneen nga bëgg ko nga bañ ko c'est comme ça tu as besoin d'un feedback parfois sax tu as besoin de valider ce qu'on appelle une décision parfois nga décision sax mais nga am envie valider ko da ngay am ko ci ko ci waxtaanal donc léegi euh, bu njëkk ba da nga daan am lu ñuy tuddee un mentor maanaam nit wala un modèle nit ka nga xam ne day nekk seen na nekk sa papa mën na nekk sa yaay mën na nekk sa bàjjan mën na nekk sa nijaay wala benn waaye buñ la confier ba nga xam ne mhm. euh, kooku dina la mën a ba nga def mais léegi ñoo nekk ci jamono c'est un peu difficile pour trouver ça parce que euh, péripéties yi bare na temps amatul information yi bare na tout sa nit ñi ñu bare dañuy réer donc dafa am ay nit ña nga xam ni moom la ñuy wax les coachs comme nous ya nga xam ne effectivement loolu mooy seen liggéey donc ñëpp nag dañ koy soxla en fait coaching du mbiru rek nit ko am problème ak nit ko amul problème am na nit ñuy gën a utiliser coaching mooy les gens qui ont plus mm-hmm. ñoo ñooy gën a utiliser coaching. Mm-hmm. bu ma la joxee benn exemple am na benn coach bu mag bu ñuy wax Anthony Robbins. kooku coach na Nelson Mandela moo doon coach Bill Clinton coach na ku ñuy wax Leonardo DiCaprio moo doon coach Serena Williams donc te ñooñu ñëpp c'est ay ni ñu siiw lañu ñu am alal ñu am lépp mais ils ont besoin de coach. donc et le coach n'est pas forcément quelqu'un qui plus fort que toi attention loolu les gars yi dañ koy wutale par exemple je te donne dans le domaine sportif dañuy gis Sadio Mané Aliou Cissé moo koy coaché mais Sadio Mané moo ëpp talent Aliou Cissé foofu du benn mais le coach day nekk hors de jeu ba nga xam ne yow mi nekk si biir champ bi doo ko gis si coaching bi ñu def aussi loolu la donc c'est pas forcément yow bu ma la doon coaché en tant que journaliste parce que boobu yaa am par contre am na leneen la nga xam ne mën naa la nga xam dina la dimbale ba sa métier journaliste nga gën ko a def donc tout le monde en a besoin parce que jamono bi moo toll foofu jamono bi moo toll que nit chercher à à se accompagner et les plus grands que ce soit des présidents des ministres des chefs d'entreprise ils se font accompagner par des coachs yi nga xam ne ñoo accompagner et yaakaar naa aussi Sénégal saxal na ko directement oh monsieur je pense que Sénégal bu mille cinq cent wala deux mille coach léegi réew mi développé. tout à fait mhm. waaw. dëgg la ñu leen di jaajëfal bu baax a baax si euh, réponse boobu nga xam te tax na tey jii ñu gën a xam lan mooy euh, coaching ak lan lan mooy intérêt tey jii nit euh, war a mën a jël coach donc ñu xuusaat rek si question yi donc tey jii nga def benn nga nekk auteur dans livre bu tudd émigration des Africains oser le retour donc livre boobu de quoi parle ce livre là waaw euh, livre boobu maa ngi bind en deux mille dix huit commencé am temps immigration euh, des africains causé le retour bon en fait jeunesse bi bon j'ai fait partie de la diaspora sénégalaise parce que yàlla dafa def ma am ma tukki woon nekk Europe dund fay at après un jour ma jël décision ñibbisi au Sénégal bon décision boobu nag xawoon na nekk une décision controversée parce que normalement aw ma woon dara luy tax ni maa ngi doon liggéey j'avais un contrat à durée indéterminée maa ngi doon liggéey ci benn société am kayit chaque année dama daan ñëw vacances Sénégal mais à un moment donné j'ai pris la décision que man dëgg ici donc ñu bëri sax commencé woon dañ ma sànni xeer naan saa yi dañ koo liggéey ak dañ koo waral ak yu kenn xamul mais j'ai pris la décision de rentrer et bu rentrer aussi je Et comme beaucoup de Sénégalais, du monde ils se sont battus et aujourd'hui, je suis propriétaire de deux sociétés qui m'ont créé ici au Sénégal. Et bon, Et alors, il m'arrive quand même très souvent mes voyages de l'Europe très souvent may dem baat mais à chaque fois moo demee damay rencontrer beaucoup de compatriotes yu may expliquer en fait que ñoom ils veulent faire la même chose et suis rendu compte que y a énormément de Sénégalais yoo xam ne seen rêve rêve bu gën a mooy nan la ñuy def ba dellu siwaat toog seen wetu kër toog seen wetu jaboot liggéey fi mais dañoo ragal loolu ils ont peur de le faire loolu mooy une tur bi sax oser le retour oser parce que en fait ils ont peur de rentrer et moi je me suis dit et puis jarul jarul jarul ragal en fait il y a euh, moi je je je je pense que l'Afrique offre beaucoup d'opportunités notamment suñu dëkk yi am nañu opportunité yu bëri yu muy offrir mais opportunité yooyu il faut aller les chercher il faut aller les trouver et donc booy xool du sax roman c'est pas un roman c'est pas aussi une biographie mais genre guide la pratique ba nga xam ni j'explique un peu yan méthode ak yan étape nga mën a jaar bu fekkee da nga bëgg ñibbisi mm-hmm. donc étape yi nga xam ne man peut-être fala jaar wala erreur yi nga xam ne peut-être commettre naa ko mm-hmm. mm-hmm. en fait c'est ça benn guide ba nga xam ne day ba nga xam ne boo ci jaaree di nga a ñibbisi voilà un peu ça c'est un peu ça le le euh, contenu, contenu du livre euh, Oser le retour tout à fait mu nekk lu am solo lool euh, livre boobu aussi c'est quand même c'est toujours d'actualité parce que aujourd'hui encore on parle beaucoup de jeunes africains tentent l'émigration donc quelle lecture faites-vous de ce phénomène ban jàngat nga am si jeunes yi nga xamante ne dem émigrer dem États-Unis wala ñu dem yeneen si Espagne wala immigration clandestine en quelque sorte ban jàngat nga ci oui euh, déjà il faut comprendre que le phénomène d'immigration est un phénomène qui est tout à fait naturel mm-hmm. je pense que nit dafa mos dafa mos di immigré euh, je pense espèces yi dañuy immigré même les espèces animales dañuy immigré donc xam nga lu ñuy tuddee les oiseaux migrateurs picc yi dañuy immigré léeg-léeg saa da ngay yëg saa gis benn troupeau euh, yu mag des millions de de de wala de choses yuy immigré yuy def des migrations donc ça c'est comme ça c'est tout à fait normal mm-hmm. espèces yi dañuy migrer humaine aussi échappé wul ci loolu notamment ñun dañoo mos di je pense que aujourd'hui booy xool àddina bi euh, notre ancêtre en tant que euh, homme moderne on les appelle les homo sapiens mm-hmm. homo sapiens ñu ngi juddoo Afrique mais homo sapiens ñun ñoo immigré peuple monde bi yëpp tu vois nit avant la naissance des moyens de locomotion bateau di am avant train di am avant euh, oto di am avant aujourd'hui avion di am sax nit da daan immigré dañ daan ak seen tànk wala ñuy immigré ak seen i seen i seen i donc c'est pas une chose extraordinaire c'est un phénomène qui est tout à fait naturel et causes yi mën na bare mën nañu immigré sax par voie économique parce que da ngay chercher feneen bu gën a baax man nga immigrer sax par euh, raison professionnelle parce que da nga gis beneen proposition yu gën a baax quelque am na mën nga par par familial parce que euh, da nga wala jabar wala doom wala rak wala jëkkër nga war rejoindre ko mën nga immigrer aussi par curiosité rek de ça nga am envie découvrir leneen nga dem waaw mais léegi nag dañuy dañuy dañuy dañuy observer ah, un phénomène quand même qui prend de l'ampleur et ki devient assez dangereux c'est-à-dire que les gens dañoo gis ñun africains jeunes yi ñu risquer seen vie et moi je pense que jaru ko quand même quoi que les gens risquent leur vie et d'autant plus que euh, boo xool bu moo koy jàngat man man je di que ñetti problématique moo mooy indi loolu si njëkk bi mooy lu ñuy tuddee problème d'information je pense que loolu waxtaanoon nañ ci pouvoir je pense que amuñu la vraie information le deuxième problématique bi mooy problème de formation je pense que manqué nañ bu baax formation aussi et bi mooy orientation donc manqué nañ bu baax aussi nan la ñuy orienté aussi suñu xale yeeg suñu jeunes yi donc information bi mooy la vraie information la plupart duñ am information yi ñuy am c'est des informations parfois qui sont très erronées parce que dañoo gëmloo suñu bopp gëmloo xale yi gëmloo jeunes yi que ne tukki mooy tekki alors que tukki ça tekki dem Europe wala dem Amérique wala nga dem Asie wala dem taxul nga tekki la preuve ñii tukki ñi et puis et chiffres duñ la ko jox bu cent tukkee booy xool ñu ciy tekki duñu mën sax dix wala quinze wala ba en réalité ñi ciy réussir dëggantaan seen immigration ci cent personnes matuñu dix quinze ans et loolu ça ça ça pose un grand problème mm. waaw. gaal gi bu gaal gi jëlee ay quatre cent personnes ñaata ñooy dee ci ci ci ci géej gi ñaata ñooy yegg ci ñu yegg ñi ñan ñoo ciy rëcc ci dara buy mën a yónnee seen njaboot loolu yëpp c'est des chiffres ya nga xam ne mais la plupart bu kenn réussir parce que je me souviens il y a deux ans de cela j'étais en Europe et j'ai rencontré un jeune euh, boy bi ci gaal gi la jaar bon mu réussir na ba yegg Italie ba liggéey tout ça da doon préparé ji Sénégal ñëwaat Sénégal pour la première fois après je pense trois ans ñuy toog booy bi la tey excité di yëngatu saa euh, waaye sama benn copain di ma tooj naan ma booy bi dee dee dee bu xaw la am quoi moo tax mu excité wu nii quoi daa waroon dee si ma ne ko nag kii c'est un mauvais exemple parce que kii bu delloo Sénégal il va encourager ces jeunes ñu def comme moom mm-hmm. alors que c'est une chose quand même exception la du règle vous voyez ce que je veux et information yi nit ñi amuñu ko beneen information mooy ñu bari dañoo yaakaar ne toog mooy torox ah, mais en fait toog du torox y a des opportunités dans ce pays et que am na ñu bari ña nga xam ne mosuñoo génn réew mi te te tekki nañu tekki bu baax sax tekki bi gën tekki tekki bi gën fee man man man li ma réaliser ci réew mi fii réaliser wu ko fu nekk Europe. bon vous allez me dire que c'est pas la même chose c'est vrai bon mais ku si nekk ak parcours am ku si nekk ak exception je ne dis que les ne doivent pas immigrer mais je ne crois pas que immigration war na laa jaral nga yàq nga nga nga nga def li ñuy tuddee suicide parce que c'est du suicide en réalité euh, jël ay gaal wala di jaar ci jéeri ji wala ngay jaar ci désert beeg ñoom seen tout ça c'est am donc problème information am nañ ko beneen problème bi mooy problème de formation ñu gën a former jeunes yi mais surtout waxuma formation métier rek mais formation li ñuy wax formation mentale formation psychologique c'est-à-dire que aujourd'hui monde bi dafa changé et sax am na corrélation ak information ak ak ak formation yi parce que tout est lié monde bi léegi dafa changé et dafa am ay bouleversements yu bëri yu am chaque jour et loolu débat yooyu gars yi dañu ko posé léegi dañoo nekk à l'ère ba nga xam ne ñu wax ay intelligence euh, artificielle ñu nekk à l'ère ñu wax les block les nekk à problème euh, les big data euh, donc les données massives beaucoup de choses yi nga xam ne débat yooyu même suñu politique yi sax ko débattre aujourd'hui alors que des débats qui sont très importants monde bi dafa changé dafa jël beneen bu mag Donc aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui changent. Et les choses vont très vite. Et que, à partir de ce moment, il faudrait que nit di mën a adapté wu si seeni situation et ñu jàngal booy ñu am lu ñu tuddee résilience parce que nga toog fii ak nga dem fala yëpp boo ñefewul doo ci génn loolu mooy réglu àddina bi donc depuis que le monde est monde bu àddina juddoo euh, bu àddina sosoo ba léegi Euh, nit fu mu jaar ba yegg si fii ñu jógee ci ay euh, l'antiquité la moyen âge les temps modernes jusqu'à notre période contemporaine l'homme fépp boo mës sa nekk ak peuple boo mën a jël ci àddina bi peuple boobu bu ñeewul ci génn c'est-à-dire peuple boobu adapté wul ci situation xool yan changement ak yan truc lay apporté par ces populations ces dirigeants et ces populations aussi peuple boobu du ci génn que ce soit ñun nekk ñu l'unique l'unique peuple qui a été colonisé attention les gens parlent toujours de colonisation ñoom mais en Asie ils ont été colonisés aussi tous ces pays que vous voyez ont été colonisés aujourd'hui les pays qui sont émergents ay Malaisie ak ñoom seen tous ces pays là ont été émergés euh, ont été colonisés par les Européens mais jaroon ñuy Européens xam nga ay question bu ma daan posé woo benn jour parce que dama lire benn livre qui Binon, qui est l'ancien euh, ministre des Affaires étrangères français. Et après, je me suis retrouvé à une question qui était fondamentale. Moi, comment quelques pays européens ont pu, en l'espace de deux, trois siècles, coloniser autant de pays africains? Et ces pays-là étaient en compétition entre C'est-à-dire, Baudelaire, en Europe, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et la Hollande ñoom ñoo coloniser pays Afrique yëpp sept pays yooyu ma la limal ñoo coloniser pays Afrique yëpp en l'espace de deux trois siècles et ces pays-là ils étaient en en en en conflit entre eux mm-hmm. cest pas en conflit mais ils étaient en compétition entre eux mais pourtant ils ont réussi à nous coloniser à coloniser tous les pays d'Amérique du nord comme du sud et à coloniser beaucoup de pays asiatiques mm-hmm. et loolu ci espace de deux trois siècles comment est-ce qu'ils ont daf ma mos a trottiner question boobu c'est-à-dire est-ce qu'ils sont plus intelligents que nous est-ce qu'ils sont plus avancés que nous en fait ba ma demee Europe je me suis rendu compte que c'est un problème d'intelligence parce que loolu moo ma njëkk a frappé la première jour bu ma wàccee aéroport bu Malpensa bu Milan ma gis aéroport bi nu mu naay see te ma jógee aéroport Dakar yow fu ma wàcc aéroport boobu li ma njëkk jaaxal mooy aéroport boobu nu mu mu gënee rafet nu mu gënee yàññi suñu aéroport nga dugg ci dëkk bi lampe yi tàkk ñoom seen ma waaru comme ñëpp daan ne noonu ñii nu ñu rawee dafa bare mais boo defee un mois deux mois ba commencé proté woog ñoom di waxtaan ak ñoom di duggante ak tu te rends compte que ces gens là ne sont pas plus intelligents que nous damay wax ne culturellement sax dañoo nekk trop en parce que yow da ngay làkk seen làkk ñoom ñu làkk sa lakk et yow da ngay xam lu bari si ñoom te ñoom xamuñu dara si yow et je me dis mais comment ça est possible qu'ils puissent être autant en avance sur nous et autant développés que ñun ñu tax alors la réponse je l'ai eue <laughs> quelques années après j'ai lu un autre livre bu lay conseiller ça s'appelle Sapiens une brève histoire de l'humanité Yuval Harari moo de l'homo sapiens ko évolution homo sapiens fu mu toll nii mooy mooy homo sapiens comme espèce comme humaine moom mooy l'ancêtre de l'homme moderne bu ñu mais homo sapiens n'était pas l'unique espèce sur terre amoon na yeneen espèce amoon na lu ñu tuddee homme de Néandertal mm-hmm. amoon na lu ñu tuddee homme de Cro-Magnon l'homme erectus l'homme de Flores l'homme de Néolidas yooyu yëpp am na mais espèces yooyu yëpp disparaître y a que homo qui a survécu et qui aujourd'hui a peuplé le monde et est devenu notre ancêtre à nous. Omar Tapsias bu mu immigré sax jógee Afrique parce que Afrique lañ jógee donc ñëpp ay immigré africain booy xool ci àddina bi ñëpp ay immigré africain lañu monde bi yëpp Afrique lañ jógee. donc voilà donc ci yéegee ba yegg côté Europe dafa fekk néandertal mais bu mu accouplé à néandertal pratiquement quatre-vingt-dix pour cent ADN bi génn yi ADN Homo sapiens donc mais fu mu ko teg ci ñaari mbir la. mooy lu ñuy tuddee euh, lu ñuy tuddee euh, le collectif et la fiction collectif ak fiction moo ci génnee doomu aadama euh, collectif moom mooy mbooloo fiction moom mooy la capacité nga am imagination parce que ñun espèce humaine nekkuñu ki ëpp doole ci àddina bi ñu doole ci àddina bi booy xool ci ci yàlla bind ñun bokk nañ ci ñi gën a néew doole parce que rabo àll yi wala rabu nit ñi yëpp ñoo ñu ëpp doole bàyyi may fas moo ñu ëpp doole segg moo ñu ëpp doole gaynde moo ñu ëpp doole gënuñu fee gaaw ñu bari ñoo ñu dàq daw rab bari ñoo ñu dàq daw ñun mënuñoo naaw. mais am na ay animaux yu bari ñuy naaw les oiseaux par exemple ñun on sait nager mais le plus petit poisson moo ñu dàq fii ñun on ne sait pas voir la nuit mais am na animaux yi nga xam gis guddi mhm. ñun suñu odorat maanaam suñu xeeñtu du du dépassé pièce bi mais boo jëlee xaj mën na jël deux trois terrains de football pour mu xeeñtu ko mhm. donc ça veut que ñun bokk nañ ci être espèce yu gën a vulnérable mais pourtant ñun ñoo téye à donner façon mais ci loolu rek lañ ko teg maanaam ci collectif maanaam on était été la seule espèce capable de collaboration avec d'autres espèces, avec espèces humaines aussi, mais avec d'autres espèces, d'une façon rapide. Bon, tu vas me dire qu'il y a les insectes, les fourmis et les abeilles qui sont capables de collaboration, mais nous, ils réagissent à un protocole qui est dans leur ADN. Bien évidemment, il y a les grands singes ou bien le chien qui est capable de collaboration, mais nous, il faut qu'ils établissent l'intimité avant de faire la collaboration. Mais nous, nous sommes capables d'établir la collaboration sans pour autant en intimité permettre de nous réagir de La preuve, nous, nous sommes nekk ci ay grotte dans une grotte les les hommes des cavernes bu ñu quand ils sont attaqués par des animaux qu'est-ce qu'ils font ils se battent ensemble contre cet animal boo seetaanee documentaire dañuy gis benn gaynde wala benn seeg mu attaqué benn troupeau de buffle buffle yëpp daw mu attaqué benn rey ko parce qu'ils sont pas capables de collectif buffle yi bu ñu dajale ko du ñu am benn gaynde wala mais on était capable de faire ça collectif boobu moo tax ak lu ñuy tuddee fiction l'imagination parce que doomu adama loolu la ko yàlla may te may ko benn baat aadama mooy imagination moy nga am l'imagination te permet de voir un événement avant qu'il ne se produise donc tout commence par une vision vision moom moo tax ñu créer lii yëpp lépp lu ñu créé ci àddina àddina dañ ko imaginer ba pare soo ko créé même des choses qui sont abstraites qui ne sont pas palpables comme ay l'État comme ay l'entreprise comme l'argent l'argent c'est du papier mais am imagination mooy papier boobu moo tax ñu mën ko kii boo jëloon léegi mallette xaalis nga teg ko nga jël régime banaana nga teg ko nga woo golo lan lay jël lu muy jël. banaana bi lay jël pour muy jël banaana bi jëlul xaalis yow bu ñu la xaalis bi ngay jël pourquoi ngay jël xaalis te moom jël muy jël banaana bi parce que tout simplement toi tu es capable de fiction xam nga ne xaalis bi mën nga ci jënd lii ak lii ak te golo bi xamul loolu donc foofu laa bëgg a ñëw c'est-à-dire que en réalité on a été en retard sur ça. Les Européens nous ont colonisés parce qu'ils sont capables d'imagination et de collectif. Vous ne voyez avec ils ont organisé la conférence de Berlin et ils sont en partagé l'Afrique. Mon personne frontière parfois ligne droite. Vous ce que je veux dire Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir de l'imagination et du collectif C'est très compliqué. On l'a pas. Bon, là, dans certaines circonstances, mais dans d'autres, c'est très compliqué. La preuve, pétrole d'affaires à gaz Sénégal. Voilà où il y a une balaa nga koy exploiter on est en train de nous disputer. Ouais. alors qu'on n'a même pas encore exploité. ça veut dire qu'on n'est pas capable de collectif d'être d'accord sur l'essentiel sax mënuñu ko tant que suma intérêt nekk ci dama ci xëpp si et c'est pas bien donc loolu aussi c'est très important donc problème mu immigration bi mooy après troisième problème bi nag mooy li may tuddee orientation c'est-à-dire que faut ñu orienter jeunes yi mais ñu orienter il faut les faire rêver euh, ay satu mm-hmm. voilà ay satu mënuñu man mu àddina gën a dox ci àddina xam nga nan la espoir yaakaar nit boo amul yaakaar doo dem man boo ne ma woon léegi eh, ñëwal nga taseeg Modou loo bëreeg moom mu wóor ma ne damay daal du ma dem bëreeg moom parce que wóor na la i mais boo amee espoir na te ni naa ko daan mën naa dem bëreeg moom mais boo nee jeune bi yow réew mi ñoo fay def daan mënul fi réussir mais il est obligé de partir par contre si tu effectivement c'est possible que tu fasses ici et qu'on fasse rêver d'un jeune je ne demande je ne dis pas des choses qui sont impossibles lu ñuy wax yëpp dafa mën a nekk c'est-à-dire il faut dire aux jeunes que bu ngeen ñeppee mën ngeen fi teg ci biir réew que l'avenir buy ñëw moom moo gën a va être un pays producteur de pétrole et de gaz loolu rek doy na espoir doy na yaakaar ba nga xam ne dañ ko war loolu je pense que tout le monde est interpellé en premier lieu l'État les nos gouvernants doivent donner plus d'informations en plus de transparence sur ces choses-là gën a expliquer nit ñi ban apport ak ban importance la exploitation pétrole a gaz am si suñu réew nan lay manque financière di génnee alal dina génn alal boobu nan lañ koy utiliser ba xale yëpp jeunes yëpp mën cee bénéficier wu c'est vrai y a des choses ah moi je sais maa ci biir ay bagages du dugg parce que je fais partie de certains consultants wala je et je vois des choses extraordinaires nga xam ni les bokku de Sénégalais xamuñu ko mais ñu ko il faut ñu expliquer leen lan mooy le contenu local et cetera euh, de la politique du gouvernement est-ce que gouvernement a gën a mën a. si gouvernement bi dafa war a gën a joxe information dafa war a gën a mën a communiquer ci lool dafa gën mais du gouvernement bi rek ah, ñun ñëpp. tout le monde dañoo war a communiquer cest dire que en réalité ce que je veux dire mooy que tu vois des gens qui sont au courant mais dañ ciy xëpp am na la amoon. C'est toujours comme ça. Hein? Le gouvernement n'a pas responsabilité donner la bonne information. Mais quand on est même, quand on est, par exemple, beaucoup de gouvernement, beaucoup d'opposition, tu n'as pas le droit de tenir ce pays. Mm. Parce que vous tenir les pays, tu, tu, tu de telle sorte que les jeunes se découragent. Et quand les jeunes se découragent, ils tentent des choses, ils ou quelque chose comme ça. Okay. Mais Bob Marley doit tell the children the truth. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne dis pas qu'il faut dire que tout est bien, parce que tout n'est pas bien. Il y a des problèmes. Mm. Mais quand il y a des choses qui sont bien, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on ñoom dañ bëgg ay actions concrètes est-ce que tey jii gouvernement bi lan la war a def pour yow selon yow lan la gouvernement bi actions concrètes pour permettre à ces gens-là d'avoir l'espoir de vraiment rester. waaw mais les actions concrètes weesuwul li ma wax léegi c'est-à-dire que je t'ai parlé des problématiques mm-hmm. information formation orientation et ces ces ces problématiques sont en fait aussi la solution ouais. donner la bonne information les vraies informations faire la bonne formation bien former nos jeunes les orienter bu ñu defee loolu incha allah rabbi dañ ciy génn xam nga lu tax mhm. parce que en réalité man sama profonde conviction la et loolu moom laa gëm man je trouve que l'Afrique offre plus d'opportunités que n'importe quel continent dans le monde opportunité yu nekk Afrique nekku ci benn continent mais c'est dommage que y a que les Africains ñoo ko comprendre pourtant ñëpp européens yeeg asiatiques yeeg yëpp ñu ngay gis ñu ñëw fii ñëw suñu dëkk yi ñoo la gën a comprendre que opportunité fii la nekk nous sommes le nous nous avons des ressources minières et énergétiques à gogo yaa nga xam ne monde bi dañ koy soxla te ñun ñoo ko yor ñun ñoo am une population jeune parce que population jeune mooy liggéey donc main d'œuvre ñàkk fi terre ñàkk fi suuf suñu bay ñàkk fi ndox ñàkk fi dara nekk fi ñàkk fi donc on a loolu ñeneen ñi comprendre nañ ko et ils viennent mais ñun comprendre que ñun on regarde de l'autre côté et on vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que il faudrait que ñuy mën di. joxe information yi formation yi ak ak ak ak orientation orienté jeunes yi bëgg parce que montrer que c'est possible orientation mooy d'abord nga montrer que c'est possible mm-hmm. je te je te parlais tout à l'heure du contenu local man quand j'ai découvert le contenu local yàggul de yàgg naa dégg ñu koy mais quand je l'ai découvert c'est ça juste fait quelques mois j'ai compris que c'était un des programmes très importants qui permettra à ce que les entreprises sénégalaises puissent bénéficier des revenus du mais bu ñu bénéficier du revenu du pétrole ça revient au peuple et ça revient à des créations d'emplois ak beaucoup de choses il faut qu'on l'explique clairement daal ñu expliquer clairement que ni tubaab yi ubbi wuñu seen frontières yi jël immigré parce que dañ ñuy yërëm déedéet parce que dañ ne dañ cee am intérêt xam nga ay satu boo xoolee euh, experts yi dañoo wax ne peuple bu bëggee conserver euh, làkkam conserver civilisation il faut il faut euh, il faut que ay jigéenam di jur ku si nekk au minimum ñaari doom loolu mooy tax peuple bi di mën a dundaat démographie am et cetera et cetera il se trouve que Occident depuis plusieurs années dañoo am une démocratie démographie buy wàcc sa à dire que seen peuple yi jurutuñu seen population dafa vieillissante vieillissante bu grand xool dernier recensement bi on a vu que Sénégal ñu ëpp neuf ans moyen de discernement ñoo fi ëpp ci Sénégal donc on a une population très boo demee dëkk bu mel ne Italie ñi ëpp ci dëkk bi am nañ quarante cinq donc ils ont une population vieillissante léegi lan mooy solution bi moom nga doon wax léegi ne tubaab dafay am fiction excellente yooyu dañuy def ay projection yu mag ñoom ils ont compris que soxla na immigration mm-hmm. mieux encore pour la main d'œuvre locale ba nga xam ne dañ ko def suñu liggéey mais mieux encore ils ont besoin de faire revivre leur peuple et leur civilisation mm-hmm. mais qu'est-ce qu'ils font ils ouvrent les frontières mm-hmm. yow nga dem man ma dem keneen dem wala quelque chose comme ça mm-hmm. mais ñii dem ñi ñii dem ñi du ñooñu ñoo soxla doom ñu ngi judd ñu fi judd ñoom ñoo leen gën a soxla waaw loolu la quoi c'est intéressant monsieur Camara donc ñu ñëw rek ban conseil si euh, kii gàttal ban conseil nga jox jeunes yi ci ci immigration clandestine. ñuy def conseil bi ma leen ma di jox rek mooy nañ dem vers la information. bu ñu bu ñu topp li tubaab di tuddee conformisme conformisme c'est vieux comme le monde ah cest dire que euh, su ma koy jàngat ne woon maa doon léegi di wax l'homme des cavernes l'homme des cavernes moo njëkk nekk conformiste. Mm-hmm. parce que se conformer mooy nga top groupe bi rek lu groupe wax rek nga top ko. tu vois ce que je veux dire mu ngi juddu depuis l'homme l'homme l'homme ba ñu nekkee ci ci ci caverne yi euh, c'était le groupe qui te protège groupe bi moo lay protégé groupe bi comme moo lay protégé da ngay toog ci groupe bi parce que boo génne groupe bi da ngay dee parce que foofu tu peux être attaqué par n'importe quel animal donc léegi da ngay toog si groupe parce que groupe bi moo lay donc groupe bi lu mu wax da nga ciy ànd même ci àndul da et la décision du groupe c' la décision du chef le chef bi wax da nga ciy ànd on est devenu des hommes mais on est resté profondément conformiste maanaam dañuy topp benn groupe rek lu groupe bi wax ñu ànd ci est très dangereux conformisme mën na am njëriñ fenn mais c'est très dangereux parce que parfois bu fekkee mu am ay information yoo xam ne baaxul wala quelque chose comme ça ndiiraan bi topp ci rek ñu ñëpp dañ ciy topp aujourd'hui débat bi lan la Nicaragua kati kati ñëpp topp ci mu nekk ndiiraan alors que parfois ce qu'il derrière les gens duñ ko xam et que les dangers yi nekk ci gannaaw les gens duñ ko wax wala quelque chose comme ça et ça c'est dangereux nañ chercher la bonne information beneen bi nañ formé bu baax il faut que les jeunes se forment bien aujourd'hui il des efforts pour mën a former mais année bi léegi je pense que monde bi fu mu tol léegi former wu moo gën a yomb yow mën nga toog sa kër nga former wu tout seul grâce à internet c'est très facile de se former beneen beneen mooy il faut avoir de la résilience il faut croire en soi il faudrait que mu am beaucoup beaucoup d'estime de nous-mêmes xam nga avoir de soi-même amul parce que boo amul estime de soi-même maanaam nga estimer sa bopp doo mën a wóolu sa bopp ba doo mën a xam sax yow ban potentiel nga mën a am parfois je pense ñuy woyee patriotisme nit ñi dañ koy foyee mais xam sax lan la tudd jour ban nga Sénégal nga comprendre que ne yow am nga patriotisme dëggantaan mooy jour bu ñu gagné Coupe d'Afrique des Nations et tu étais tellement fier on est sorti on parce que pour on était très fiers d'être sénégalais mais bu weesoo loolu après on n'est pas fiers on est on préfère à chaque fois bu ñu waxee sa réew nga commencé sànni ah waaye fii dara baax fii dara baax fii ça c'est dangereux il faut ñu delloo si woon espoir ci biir réew mi delloo si woon yaakaar ci biir réew mi gën a tàggat jeunes yi gën a tàggat xale yi gën leen jox et gën a xam ne les opportunités sont là euh, la possibilité de réussir est là. Et il va falloir tout simplement avoir ce qu'on appelle une pensée critique des choses. Il faut avoir une, faire une bonne communication. di gën a suñu biir di gën a booloo beneen bi nag ñu gën a am créativité maanaam di gën a xalaat parce que sénégalais am na créativité ah. mais on l'utilise pas comme il faut ça veut dire que am na un jour damay seetaan benn vidéo et j'ai vu benn waay di wax ñaata fecc lañ créé Sénégal. Je ne sais pas, je sais vu la vidéo. Mhm. les gens du coup critiquent, mais en fait moi je critique pas. Si les Sénégalais peuvent créer fête chaque année wala chaque trois mois, ça veut dire qu'ils sont créatifs. Ça veut dire tout simplement que c'est de la créativité, mais il utiliser fête mbay mi, gën ko utiliser ci art bi, gën ko utiliser ci science beeg ñoom seen ñu gën créatif et ñu gën a créer choses et ça tout à fait possible. conseil yi mooy information communication ñu former aussi les jeunes à ce que ñu am fi temps toog Sénégal si seen liggéey donc chers internautes comme li ma leen ko waxee tout à l'heure bu ñu ubbi euh, rubrique de l'invité de la rédaction te ñu ngi doon invité ki nga xamante ni moom monsieur Karonga Camara nekk euh, entrepreneur nekk chef d'entreprise nekk aussi ancien immigré donc euh, nekk auteur du livre Oser le retour ah donc ñu ngi ko doon dalal si studio rubrique invité de la rédaction a teewlu bi te di leen ñaanal yéen si jàmm.